Ya Allah Ya Allah Lo ci ñaan mu may la loo ci jéggalu mu baal ci la ngëneel yi Ramadan Ramadan قدم يا حبيب يا حبيب رمضان mu ëmb leen moom maa leen wóoroon ci koor gi ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim parce ni ci génn alhamdulilah rabbil alamin su ma sayoon nag euh, comme dëkkandoo dafa naax euh, ñu am ñu mm, ni wooree ci biir kër gi ndax sunu moom dafa ne man kaanu yu'minu billaahi fal yawmil aaxir falaa yutii'ir jaaroo. Hmm, dëgg la daa danoo fonk la dëkkandoo lool. waaw dama gis yoo xam si ni ci biir kër gi. kër gi wax dëgg yàlla. Ah, waaw gii ñu nekk nii neexuma ndax gis naa ci ñu naan ay Royal ay Barça ay yooyu. ci alors ah, dañ doon neex nag Royal ak Barça moom. samay soxla na man maa leen takk leen takk ci farat yàlla sunu Muhammad xam maa maamu kër gi maay wax man maa leen takk ci farat yàlla ak sunu Muhammad. parle bi maamu kër gi de. maa ngi lay ah moo tax ma jox la ne ma dama laa jox ay règlement yi wax dama ne la parle maanaam ah. parle. waaw man maa leen teg ci frère yàlla sunu Mouhamed bi ma leen takkee ba pare bugguma tamit aussi ñu ñëw ci kër gi di jaxase. dëgg la de waaw. walaay dëgg Royal Barça. loolu classico bi la woon rek classico bi la woon rek. waaw non jàmm laa bëgg ci biir kër gi ci soxna yi ci yéen ñi ci bundux mi nekk ci biir kër gi. moom am nañ moom waaw ak dox bi nekk ci biir kër gi yëpp jàmm laa ci bëgg ñu koor ci bisimilah rahmaan génn ah daal ah, yenn détails yi nag am na ñu fi nekk ñu seytaan ñoo xam ne du ma tudd seen tur parce que jikko ji ñu amee néexuma nit boo ko fekkee ak këram ak soxnaam da nga leen war a boole waaye waroo leen tàqale. kon xanaa wootewul waxtaan. waxtaan di léebuwaat. léebuma sax mbay yow laay wax. waaw kon da may wax rek. waaw yow laay mbay moom sa jikko néexuma. na waaw loolu nga may wax ma dama dànkaaf. waxal ak moom booy wax ak moom. moom kër kii ko daal. maa ngi eh, jaxase gi mu def ci kër gi néexuma. kan jaxase. waaal Barça ba rek. kan jaxase aw ma droit ni ci li mu togg neex na. mbay danañ génn de mbay danañ lu génn de mbay. Eh, baal ay danañ génn kii moomu nu moomu nu danoo fat képp. maa leen di jox ngeen di lekk mbay. yàlla ñu booleeg yow. ah teel ci côté boobu nag. yàlla ñu booleeg moom waaye kii wa kii walay jox lekk de. dama damay togg de. dama ne yàlla la yor waaye kii walay jox. yàlla nag bu la mayee nga bew sax mën na ko nangu.

kër moom ba baa buftu bi di wal waxtaan na neex borom kër ga way wi këpp gaal kenn da ko way ci tefes mm-hmm. te man nugum ku ma xam-xam ni mm-hmm. far fii far fee sama royal mom éliminé te moom mi barsaam day deñ ndax man ak moom sax barsa day deñ kër gi moo moo moo ko nag mbay mais lépp loo wax daal sa waxi boppam sa engagement bopp man bu engagé dara maa moom sama bopp kenn moom ma kenn moom ma laa la wax nugum data yu bari lay bañ waaw li ma bëgg ci yow boo jógee war ma safaa waxtaan ak moom ndax kii dafa dëgër bopp bu ma jógee ma bëgg ci kër gi ci kàttanu yalla mo fi am. ta et puis sax ndaw si kaas na xelal dem bu nang ko ko wax bu ma ca xelalal. damal may nga rek wax tan sun biir damay may mën na ma wàcc ci sëriñ may gis naa ko sëriñ Modou Bakhoum keur gi li borom keur gi bëgg moy am. yow xamoo yow da may da ngay genn nak man gennu ma dafa la naan wax ak yow jonne na de. keuruk jàmbur nga dugg ci bir yow ya nga jaar ci lateral gauche ñu ne déeta way nga jaar ci bir dugg ci surface di yor tir cadre borom keur gi. yow xamoo li sa problème yow da nga deglu manam yalla gemiñ gum xar na ci def lu mu lek demal ci mbedd ma tok fa tabul dugg ci keur nga ni demal tadd fe ci buntu keur gi genn te da nga ñak jom da nga yakan yalla xar xari gemiñ yep ci duggale non da am ci kum jaar de ki wala yor jabar may tok mais da koy jaar rek mom tax mu bëgg no yap lolu da nga war ko respecter nak mo ko respecter mais man luma man sama bëb du ci tom mbay mbay man ak yow yoruno mag mu yuru gone nga rew mi ku fi amul xaliss da nga sétan ci dong mi ngi melni max am nga tok man nak sétan ci bobu mo sétan ci bobu mo xaliss dama bëgg a bokk ci classement bi man. classement bu noo ci bokk te yoroo takk bi. xaaral ah, xaaral nga yor takk bi di tooyal baaraam bi di compter. yoroo takk bi bi di bokk ci classement. yow gëmoo ne ko ko kuy voyage ci doole jàmbur boo ma ko ci gërëm ñun ma ko ci gërëm de. doo ko ko ko may ba suba na kii rek ma soof. neexal deret neexal deret mbay. kër gi li fi am maccaatum kër gi rek rek na ponkal. maccaatum te ngaa mas naa ci kër gi. xanaa bu awa bi ba yow kii li may waxatee ngi parti boobu dañ na dama ne xanaa bu kii aaye kee mos naa aaye fii ba nga maccaat fii ci kër gi lépp laay moom koy ah moom kay nag boobu gi dégg dégg neexatoo lépp mu ne su ko wax waaye nag maslaa rek ah, xam nga xam nga sutura daa metti ni maslaa ba mu dem rek man xam naa ni li nga wax xaaj bi dëgg la waaye da ngay neex direct ndax doolee jàmbur ku ci voyage war a borom suñu jàmm ji yëpp moom la fi bu ñu naqaree dañuy ñoo borom may ngay yem de ci biti la ñu fanaan tàngal naa de tàngal nga waaye tàngal gi bul jàpp ne dana la jig de ah. sa weer sa bopp ah. tàngal tàngal jigal sa ne ko mbay daa yore rap rek wax ko loolu ah. sa gars laa jóge de doon woo leen woon doon waxtaan mbay ak la waaye mbay moom ku dëgër la daanaka loo wax mu teg ci baat waaye nag comme yàlla ñu jiite hmm. ñu ni suñu kanam daanaka li ñuy def daanaka tegane loo xam ne yàlla moo ci jàpp daanaka Mm-hmm. kii daal mu solo mu solo boo waxee sox dina xaw a weccoon tegeeru ci ay kàdduwaay yàlla bu la jiitalee foo mu am lu mu la jiitale mooy ak muñ dëgg la waaw moo tax boo faaw faaw ñu sax te muñ rek waaw xam ne ñëpp bokk ñëpp mm-hmm. mm-hmm. adduna moo ndax nit ñi gis-gis yi bokkuñu te day tollowuñu dëgg yàlla moo ñu bind te yemalewuñu naa su muxtalifoona maa leen bind te yemalewuma leen te jamono ji moom surtout période bi ñu nekk mhm. ñu nekk ci weer woo xam ne weeru ngëneel la nekk ci weer woo xam weer wu tedd la mhm. euh, daanaka day weeru yërmande woo xam ni mhm. euh, boo doon yërëm nit da ko war a yokk waaw te yow nag comme suñu borom daf la jiite daf la dugal nga jiite ay nit jiite ay mbooloo mu jaar ay wërsëg ci ñoom ah, lay war sa wàccuwaay mooy dee muñal rek waaw ginnaaw ñoom ñoo warul muñ waaye yaay wëlbatiku yow di muñ booleeg yor leen te xam ne nag yàlla yow la jiital loolu rek tawféex la mm-hmm. te koor gi tamit wax dëgg yàlla day weeru ngëneel boo xam ni mm-hmm. dañ ci war a profitoo di jéggale di ci profitoo tamit di yokk suñ jaamu yàlla yi mm-hmm. ndax kat koor du soppiku mukk te koor du jóg ci tedd sëñ Touba la mu ko waxoon ci yaa xayra day fi rek loolu rek moo fi nekk waaw xam nga tagg googee mu ko taggoon banaan ko laasil te day fan chiaron abadan doo deñ mukk di doon gan goo xam gan gu tedd nga waaw kon nag yow mi ma dëkkee ci ngeneel ah, kon dara du koor waaw ngëneelam googee ko sëñ Tuubaa doon tàggee tey la raw mhm, kon nag kooram yooyu ak koor yi benn koor lañ teen mun leen mhm, tàggale mhm, jant ba daan moo ni tiim Seydina Muhammad moo ni tiim ba tey kon nag ñun nañ jéggale rek jéggale te yokk jaamu yàlla yi ñoom nag gis naa sax man seen melokaan waaye jaamu ci yàlla rek jaamu ci yàlla rek ndax uh, bëggoo yàlla def leen ni mu leen def waaw kon nag loolu mooy waral jaamu yàlla gi kon yàlla la def ni nga mel mhm. def leen ñoom ni ñu mel mhm. waaw waaye nag loolu lépp rek nañ ko sant yàlla alhamdulilah waaw tane leen rek mhm. yéer leen yor leen incha allah da di leen waxtaan ak ñoom di leen jubbanti incha ndax xam nga tamit boo gisee yenn nit ñi di mel nen ni boo gisee nit bu amee doom di xar tànk tubéy ngir mu jub xar tànk tubéy ngir mu am lislaam lu mel noonu la ndax ab yar day weesu fi nit am njàng xam-xam day weesu ci nit ragal yàlla sax dañ koy jëmbat ci nit mhm. waaye nag bu fekkee ne yooyu yëpp kenn defu ko ci say waajur defaluñu ko xamuñu ko dëgg la duñ mën a ràññee lu baax ak lu bon loolu rek moo leen jàpp dëgg la waaye nag yàlla ñu yàlla dimbali rek mhm. ab soññi la ci ñun ngir suñuy njaboot ñu ne ñu jëlaat leen jox leen jébbal leen sunu borom. incha allah incha allah kontaan naa lool. wax dëgg yàlla kontaan naa lool am na rafet lool ci kàddu yi nga yëkkati. ndax euh, wax dëgg yàlla dëgg rek moo la ñor ndax am na ñoo xam si ni am na melokaan wu ñuy mel sax. Mm. nit ñi duñ leen sawar wax dëgg wala wala duñ ko ñeme. waaye euh, maanaam sañ-sañ bi nga am ba tax. ñu waxtaan ci diine rek nga waxuma dëgg mën na ko rek alhamdulilahi rabbil alamin ah, ñëpp nag dana waroon a jàngat ci ñun mm. ndax nit ki teg yàlla teg la fenn tamit mm. taxul mu may lépp nga mat ci ci côté na ñu lay ci benn côté kon nii nga ñëwee di ma mottali ma fàttalikuwaat suñu borom di ma mm. fàttalikuwaat yeesal gi may ànd ak sama diggante jullit yi loolu rafetlu naa ko trop jërëjëf al muxtaar gin lay wooyee ah, mi ngi ceew ndax ku tànn nga macha allah saax nga am